rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci rajo yi ak site internet yi ak télévision yi ñoo ngi am mbégte di leen nuyoowaat fii ci jumaa ju tedd ji di jumaa ji nekk ci dëkkub Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci ànd ko ak commission bi nga xam ne ñooy commission bi séntu weer wi ci ndigalul Sëriñ Tuubaa Cheikh Saalihu Mbàkke mi nga xam ne moo ko sosoon waaye ñu ngi koy def nag ci kilifteefu Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekk di xalif zaal kulu murit yàlla ko fi sun borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram ñu toog nag ak sunu jëwriñ di Serigne Modou Mamoun Boussa imaam mu feggoo ak Serigne Abdou Diop imam mi yore kaddu commission bi waaye fekkoo ga ak waa daayira mu xadamatul ma bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu jumaa ji da ngeen xam ne nag ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu jot ci weer wi danañ taxaw fii séentu weer wi ginnaaw bu ñu julee timis ba noppi danañ yéene ci rajo jumaa ji ne sëriñ bi nee nañ maase séentu weer wi noonu la ñuy jokkoo nag ak région yi nga xam ne ñoo ñu seq rawatina ku mel ne Serigne Bachirou Mbacke mu sëñ Abdoul Khoudous ak Serigne Modou Mbacke waaye di jokkoo ak ku ne Serigne Modou Mbacke si mu nga xam ne moo jiite représentant Khalife général des ci région yi nga xam ne ñoo ci biir réew mi loolu nag bu ko defee ba waxtu jot danañ àndaat ak Serigne Abdou Diop mu jot ndigal ci kër Serigne Touba Cheikh Mamadou xam le li nga xam ne moo jot a ruuse ci commission bi. tey jii nag la euh, gaawu yamoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci diggu Tabaski ginnaaw bu ñu séentoo weer yi ba waxtu jot kàddu yii la sëriñ Abdou Diop di yëkkati ci ndigalu sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ni ko sëriñ Fallou Galas si la waxee rek niñ ko baaxoo def muy sëñ bi dañuy digal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne ñu dikk jumaa ji yéene ne nañ nañ séentu weer te lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko bi ñu defee noonu ba noppee nag ñun waa commission bi ci njiital sëñ Modou Mamoun Bousso dañuy jóg dañuy toog ci soowu jumaa ji di di séentu weer yi di ko séentu suñu bopp ak di taatam xibaar yi ci gox yi bu ñu ko defee ba waxtu wii jot na nga xam ne sone nañ gee di ko waaj a noddu lañ liñ dajale ci xibaar mooy gisuñ fenn fuñ wax ne gis nañ fa weer wa mu looloo tax nag ñu koo kër sëñ ba ba bañ jokkoo kër sëñ bi yëgal ko loola it moo daal di joxe ndigal ci kon ñu xam ne suba ci ci dibéer ji mooy mooy fanweereel fan fanu digg bi diggu tabaski bi kon ñu xam ne suba dañuy mottali tabaski gi ndax kenn gisu ko dañuy fet mottali euh, digg bi kon ginnaaw suba ci altine ji mooy doon benn fanu tabaski bi kon sëñ bi loolu la joxe ndigal ndigal loo xam ne ko aj ci séntu gi doon séntu ba gisuñ ko ñu yëgal ko ko muy mu war a joxe ndigal li loola ca la joxe ndigal xam ne kon suba dañuy mottali fanweer ci digg bi ginnaaw suba ci altine ji mooy doon benn fanu tabaski gi na ko xam te ñu ñaan mu yàgg fi lool te te wér tan ba li mu yéene ci yoon wi mu def ko tan ànd kook moom dara ji sëriñ Touba Abdou Khadim Diop imam Touba moo doon jot a jokk ak